sëriñ Mbàkke Soxna Lo sëriñ Mbàkke Soxna Lo sëriñ Mbàkke Soxna Lo di fi nii ñu màggal borom Taif aousu billahi min asheytaan arrajim bismillahi rahmaani rahim julli di mbokki taalibe seen mbokk Cheikh Diop Taif bokk ci sous sec bokk ci section Taif nekk président sous section village jeune bu Ndaam tam bokk ci section Taïf nekkaat deuxième adjoint ci présidence ci comité directeur bu wilaya jeune bu Taïf bi sëñ Cheikh Mouhamed jiitoo Abdou Diop topp ca maay maa ca topp. jërëjëf ci sa laaj bu am solo boobu sëriñ Mbacke jëmm ji ñuy fàttaliku te mu sos liggéey bu am solo bii ngay laaj yan lañu war a mën a fàttaliku ci moom ngir ngeen mën a jël relève bu ëllëgee bokk na ci li nga wax ni léegi kuñ mas a tagg ku nekk ci jikko lañ la taggi teggewuñ la kër gu rafet teggewuñ lay ote ki gën ci nit ñëpp te kuñ bind moo tax la ko suñu borom tàggee mooy ne ko la alaa xuluqin aziim jikko moom la ñuy nawee nit sëñ Mouhamed mii ñuy fàttaliku daana wax ne réalisation boo gis bu mu mën a doon ci àddina sëñ Mouhamed nee na ci gannaaw jikko la tegu nee na bu dee jikko ju rafet juñ naw ci kaw jikko la tege bu dee jikko ju ñu xeebit jikko la kon jikko rek amat a defar liggéey bii bi ko sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké di sos way juram la mu bëggoon mooy defar jikko yi ndax daayira yi mbooloo yi ku ci wujj te sa jikko defaruwut sa dem ca mbooloo ma amul njariñ sëñ Tuubaa maamam it ne woon na nit munta àgg ci yàlla jikko mooy àgg ci yàlla jikko ne woon na sa jikko sëñ Tuubaa ne sa jikkooy baax bañ di ko waxtaani mu doo ko waax wuti sunu borom bu dee jikko ju baax ja nag mu del siwaat ci yow nga sant sunu borom mu fes ci say cër nga koy doxe su dee jikko ju baaxuti sëñ bi nee na mooy wër ne ba ñëpp di la muslu ak a mettitlu mu waaxu ba demee suñ borom rejeté ko sànni ko mu del si ci yow waaw ah, loolu kon lu am am solo la jikko nag sëñ Tuubaa def foo mësoon bind baat bi xulux muy ñetti lettre di ñetti xaraf xaaf laam xayin araf bu ci nekk daa am lu muy signifié loo cay am bu sa jikko baaxee sëñ Tuubaa ni nit ki jikkoom baax ba defaroo xaa gi mooy xel mu rafet laam gi liggéey bu rafet xaaf gi xol bu rafet sëñ Tuubaa ne nit bu mu xelam rafetee ab liggéeyam rafet ab xolam rafet dana raw rawaal li mu am lépp ci nag àllaaxira lii nag la ñuy sëñ moom bëgg lool ba tamu ni ci mbooloo mi intégré sëriñ sëriñ Mbàkke soxna loo sëriñ nii ñu màggal borom Taayif